nuyu bu baax a baax yéen ñuy topp ci Leewtoo TV comme ni ñu ko waxee Leewtoo ak Alioune Seye numéro 2 lañ daraloon mais bu ñu ñëwee këram rek daal di fekk ay nitam dañuy foog ñu toog waxtaan ak ñoom laaj leen tuuti ci kooku mooy kan sëñ bi maa ngi bàyyi la nga présenté wu. maa ngi lay fay soxna si. Mhm. tur bi naka la. man maa ngi tudd Alpha Oumar saw mhm. nekk responsable jeunesse républicaine ak bu benn bokk yaakaar bu yëmbal. Mhm. nekk aussi conseil municipal à la mairie de Yëmbal noor waaw. ñu ñëw fekk la fii kër Alioune Seye ba relation nga am ak euh, champion boobu. waaw avant tout d'abord dama koy nuyu di leen nuyu par rapport ak seen émission parce que tey jii nii moom mu invité ma ak mu bañ ma invité tey dama war a ñëw. parce que le votre thème c'est quelque chose lu am importance la muy mbër ak goxam ak goxam muy le litter ak si quartier bi mu dëkk mm-hmm. loolu ça peut mën nañ si wax lu bëri. Mhm. mooy que ni un lutteur dans son quartier il doit être un acteur de développement. Mhm. bañ a limité wu kese si làmb ji. Mhm. te moom euh, il est comme ça c'est un lutteur. il a beaucoup de fans dans ce quartier am na fi ay fans vraiment te nit ku baax la aussi nit ku ouvert la. qui est très social nekk un acteur de développement. soo seetee si inondation yi parce que man je le suis de près. day engagé wu dem dugg si kër yi jàppale ñi ñi nga xamante ni seen kër yi dafa am ndox. Mhm. jàppale leen lu ñu leen mën a jàppalee rek. Mhm. période aussi pandémie bi il a su organiser yaakaar naa tey sax dina ko lancer une journée de sensibilisation distribution de masques. Mhm. de gel xam nga sensibiliser la population. pour respecter les gestes barrières. lors des dernières émeutes aussi il faisait partie des lutteurs qui ont initié un concept bi nga xamante ni ils vont sensibiliser. la jeunesse pour ñu apaiser tension bi parce que dafa bëgg a won askan wi que dëkk bi ñun ñoo ko bokk suñ ko yàqee suñu bopp lañ ko yàqal suñ ko defaree suñu bopp lañ ko defaral kon kooku su amee lu mel nii ay ñëw seetsi ko dañoo war a ñëw témoigner loolu noonu si moom parce que c'est important dans la vie de se servir de servir et non se servir seulement en tant que mbër mu nekk ci milieu bu xaw a difficile soxla jàppale bu bari ci yan tem ngeen nekk di ko jàppale moom pour mu mën a jàppale boppam. waaw euh, xam nga mbër moom dafa laaj jàppale. Euh, parce que aussi euh, avant tout d'abord damay wax dénoncer le fait que ni ñu tëj lépp ñu tijji lépp ba mu des làmb nawetaan a ngi nii dañuy fubali nawetaan. Mhm. te làmb ñu tëj ko te sénégalais il faut ñu xam ni ñu làmb suñu culture la. Mhm. mbër yi ñu ngi souffrir. Mhm. vraiment parce que loolu aussi moom mooy seen gagne-pain si la leen di dund nga tere ko nit ñi te aussi gisuñu dara dara loo xamante ni tey état jàppale na ko les lutteurs qui son la mhm. wala peut-être ceux qui sont au sommet. Mhm. ñoom ñooy partage seen gato bàyyi ñi nga xamante ni ñu ngi nekk si diggante bi. et mhm. ça c'est pas une bonne chose. donc nu étant dans le quartier. mu nekk suñu ambassadeur parce que aujourd'hui quoi qu'on puisse c'est notre ambassadeur. parce que suy dem di bëre ji. tur yëmbal lay demee. Mhm. du demee beneen beneen tur. Mhm. kon nootu devoir c' est de l' mhm. nag dafa yaatu. on peut par des moyens financiers. on peut l' accompagner par ñi mag ñi yore seen kurus di ko ñaanal. on peut l' par des supporters parce que mbër aussi dafa làmb dafa laaj nga am supporter. jeunes dem ànd ak ñu gis population bi ñenn ñu ngi toog seen coin. Mhm. di ko jàppale si yeneen ak yeneen. Mhm. c'est ça aussi loolu lañ te gars yaakaar naa ni ñu koy parce que moom moo wone askan wi lu tax ñu koy jàppale loon mhm. parce que su amuloon ouvertir bi su amuloon engagement ci biir goxam. kon kenn ko jàppale noonu. mais vraiment su dee bëre tey. da ngay gis fii nii day fees dell autorité yi di dugg ak a génn di ko jàppale. te loolu c'est un geste à saluer et j'appelle aussi à tous les dignes fils de Yeumbeul ñi nga xamante ni tey seen loxo jot na seen ginnaaw ñu jàppale suñu champion bi di Papa ñu naan ko Aliou Seyde. ci noonu nag ku ne ku ne nit ne Leewtoo ak dinañ bëgg xam nit ki bu baax ci ban jikko moo la gën a neex ci Aliou Seye. Euh, ban jikko tu sais tu le vois. c'est quelqu'un qui est très modeste. Mhm. et qui est simple et qui est ouvert aussi. Mhm. et te loolu noonu la ñuy laaj si nit. Mhm. te su en le voyant tu sauras que c'est un lutteur. parce que si tu vois l'image des d'autres lutteurs. tu le vois ngay gis benn image bi mais moom il est correct. il est sympa il est ouvert te soo ko xoolee tu le vois. envers lui. waaw lu ñuy tëjee rek ban message avant ngay laaj message sax moom ban conseil nga koy jox ban message ngay lancer en même temps. mbër moom ko jox conseil benn conseil rek nga koy mooy que ni leen ay conseils yi mooy na respecter entraînement wa mi mhm. normal deux xale yu jigéen <laughs> est-ce que yow mën moytu non si parce que nag soo bëggee dem fu sori du mhm. làmb kese mhm. am na yoo xam ne dari macha allah yàlla may na ko soxna su baax su rafet na toog gérer ko te moom nit boobu noonu la parce que su fekk loolu loolu su nekkoon te Zarko kon du egg fii mu egg tey mm, mm-hmm. waaw ñaar yooyu noonu moom <laughs> mbër moom dañ ko koy dañ ko koy te tamit mbër aussi na moytu di par parloo na boole ñëpp mm-hmm. ànd ñetti conseil yooyu daal dinaa ko ko jox mooy que ni na entraîné moytu ñi bañ am par parloo na boole ñëpp def ko mm-hmm. si moom na mooy sa kàddu gu mujj sama kàddu du mujj mooy damay rafet rafetlu seen teewaay fii si Yeumbeul Nord vraiment di leen saluer aussi par rapport à votre thème muy mbër ak sa gox. di la di ko remercier aussi di ko naan di nous sommes très très impatients fu mu toll pour làmb ji tijjiwaat. Mhm. pour combat bi nga xamante ni moom moo koy kii nii. mu dem bëri ji ko indil ñu ndam ni mhm. parce que wax dëgg yàlla yàgg nañoo indil ndam fii ñuy savourer la victoire. Mhm. et on est très impatient ak impatient actuellement. di xaar lamb ji pour mu indi laa yàlla na ko yàlla mbay nam te day am ndam saa mhm. incha allah ca kaw sa kanam rek. te noonu jërëjëf jërëjëf Alpha merci beaucoup. ba léegi nag dañoo toog ak beneen njoñu Alioune Seye numéro 2 wala junior nuyu naa la. Alioune Seye junior junior tur bi naka la. man Bada Dia laa tudd magam laa. mag ci nga xam ne mooy Alioune Seye lan nga ñu mën a wax ci moom. ci lu baax wala ci. ci moom en général kan mooy alin Seye mooy Alioune Seye junior. junior mooy. Papa Dia la tudd. bi muy bëreem ba pat bi mu demee ba dugg si làmb ji si la tuddee Alioune Sèye Junior. doon raq ju baax wax dëgg yàlla ñoo bokk baay mais ñu bëri dañoo def ne ñoo bokk ndey ak baay man ak moom. depuis début carrière bi muy bëreem ba pat ba ni mu demee làmb lépp ma ak moom la wax dëgg yàlla. mu nekk raq ju baax raq ju yaru wax dëgg yàlla respecté ma lu muy def daf ma ci laaj sama conseil. waaw loolu daal xam naa ko si moom. xam nga ko si moom suñu la laaj euh, ki nga xam ne mooy sa raq ban défaut nga gis si moom boo xam te ne nag kii lii moom mooy défaut ndax nit moom du ñàkk a défaut. waaw xam nga àdduna moom ni ko nekk am nga burlu woon. Mhm. mais wax dëgg yàlla moom leen rek mooy catam gaaw a mer. day yéeg. waaw parce que mhm. da buggul ko ko yab daal. Mhm. mais à part moom amul problème man maa ko jàngal métier. menuisier la doon liggéey. man maa ko jàngal métier. bi mu jógee si man après si la dem pàkku làmbaay mm-hmm. mais sama atlet la commencé di bëree bëree foog waa ma leen di tegal xaalis ñuy bëre. Mm-hmm. muy daan ay moromam foofu ñoo xam ne ñoo ko mag di daan ñoo xam ne ay moromam lañ. Mm-hmm. waaw. fu ne nii boo ko doon jox conseil ban conseil nga koy jox. Ah, moom conseil na bi mu ba toll si jël soxna dafa jël soxna. musul nekk si affaire caaxaan wax dëgg yàlla. musuma kaa gis ay yu ñàkk fayda wax dëgg yàlla ci wàllum làmb ak làmb fi mu nii. loo ko doon yebee soo ko yeb làmb moom li ko gën a arrière làmb mooy dafa bëgg a dajal moromam yëpp te loolu mënta na si làmb. maa mhm. daan Mbaye Diouf rek bu faas rek loolu doy na doy na kii. Mhm. maa daan Brise de Mer. Mhm. booy ñaami Brise de Mer moo ko lancé ci làmb. bi mu daanee Brise de Mer ci la yëg ci làmb. daan na booy ñaa da daan na Cheikh Niang bu kees daan Brise de Mer. daan Mbaye juuf ñooñ ku leen daan rek làmb amul kenn ku la mën a bañati ci làmb waaw mu war a jël combat dem jël Tidiane fay le professeur ba muy jël combat boobu gisoon ci benn risque non làmb amul risque ki fi la juddoo man maay magam barke sëñ Fall bu dañ kaa war a rey barke Seexul Xadim kii bëre na quarante cinq combat yoo xam ne mbapat la ko bëree ay moromam kenn daanu ko ci 2012 ba 2009 mbër daanu ko diggante Pikine ak Thiaroye ñi ñu fi dàqoon a bëri ñëpp ñi nga dégg ñoo fi dàq bëri ñëpp dalee daan ba ci Siteu moomu ba ci Sa Thiès mii tey combat moom daa daw am benn booy bu nekkoon école de line Mbaye bu tudd Ousmane ku fi nekk champion fii daan na la kon moom amul problème ay Tidiane Faye ak ay kii déggalu ma la Mbaye Diouf mooy daj dëpp gi ku daan Mbaye Diouf kenn waru laa mën a jaaxal ci làmb te Tidiane ak Mbaye Diouf différence at Mbaye Diouf magawul Tidiane Faye lu mat cinq ans mhm. wala bu ko magee si la mhm. te kii Tidiane Faye ëpp na ko lu ëpp dix ans mhm. làmba leen boole xëy na Tidiane Faye mun na koo mag mais munu koo gën a Tidiane Faye daanul ku kii daanul kii mi ngi si treize victoire dix huit combats la bëri treize victoire cinq défaites loolu ci palmarèsu làmb tey am na ñu nekk VIP ci kaw ba ci Eumeu Sène moomu ëppale ko ay victoire làmb nag ki nga war a bëreel boo bëree moom ànd ak say mbokk yàlla jàppale la. yàlla dina la may ndam. te làmb ñëpp ku ci nekk fii booy bëri say mbokk ngay àndal. parce que benn doomu aadama defalul yàlla loo xam ne war naa mun a xaj moromam jox la. mais da ngay sabablu làmb moom sabablu la ak gëm-gëm te man am naa yaakaar ne barke sëñ Abdou Karim da koy daan day daan Tidiane Faye. jërëjëf kàddu yi rafet na lan mooy sa kàddu gu mujj. mu kàddu gu mujj mooy yàlla na yàlla nañ tijjiwaat làmb ji. yéen it yàlla defal leen jàmm. Mhm. seen site bii nii yàlla def ci xewal defal leen sutura ku ci nekk li nga bëgg si yéen yaa ko xam. Mhm. yàlla leen ko yàlla defal. Mhm. ci barke Seydina Mohamed. yàlla nañu yàlla may ndam si combat Tidiane Faye bu ñu tijjee làmb ji ci barke na Mohamed. di char xaritam bi tamit Mor Gueye booy bu baax la wax dëgg yàlla. lu sa waay xewle mu nekk mu mu mu nekk ci. même combat day mel ni moom mooy bëre. wax dëgg yàlla maa ngi koy siyaar bu baax di ko ñaanal jàmm ju bëri. di ko ñaanal moom it mu yàgg ak soxnaam ak njabootam. ci barke Seydina Mohamed. siyaar naa leen ñëpp di siyaar sama papa ji toog tamit. sama papa lañ ko tuddee sama xarit la. Uh-huh. waaw papa ko baax a baax a baax. Pape Malick Dia la tudd. Uh-huh. waaw mooy suñu papa. merci beaucoup kontaan naa ci yow bu baax a baax. waaw di gërëm sama grand bi nag. ki nga xam ne fii ngeen ñëw nii mooy moo moo fi suñu kilifa muy Yoro mm-hmm. di ko ñaanal lu mu mun ren yàlla na ko mun déwén di ñaan gudd fan ci moom wér ak soxnaam ak sumaare mm-hmm. ak njabootam yëpp yàlla taxaw leen mm-hmm. ak kulli ku fi nekk rek ak suñu waajur bi fi des yàlla guddal fanam defal ko xéewal ku bëree bëree bëri amiin si barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi jërëjëf di leen bégee bu baax a baax yéen ñuy topp ci Leewtoo TV leen nuyu yéen ñuy topp ci réew mi ak bitim réew leen jaajëfeel bu baax a baax Leewtoo ak dafa dellu siwaat ak beneen champion nara fa seeni waxtaan ak moom kan lañ dalal xale bi yëmbal bi ah, magu Fatma Dia ñu naan ko Alioune Seye Junior Alioune Seye Junior dama leen nuyu bàyyi la nga nuyu internet yi waaw gannaaw bon sant yàlla julli séenante bi sant suñuy ñaari waajur sant suñu sëriñ sëriñ kër si santaat suñu xalifa sëriñ Babacar Sy Mansour yal na yàlla yàggal ko fi mhm. wér wér wér di santaat sama sëriñ maam Malick si mu sëñ Mansour di sant sama gars yi bu baax a baax waaw maa ngi sant gaa yi bu baax a baax sama gaa yi maa leen sant bu baax a baax a baax a baax waaw. ñu ñëw seet si la fekk la sa gox Leewtoo ak yendu ak yow depuis suba ba léegi bu ñu mënoon xam Alioune Seye nga wax ñu tuuti ci Alioune Seye kan mooy Alioune Seye. waaw Alioune Seye Alioune Seye junior mu ngi nekk benn benn boy bu nekkoon bu juddoo. Euh, Géejawaay la juddoo Cheikh Wade. Mhm. mais nag yëmbal yëmbal yëmbal laa màggee quoi. waaw. mu nekk mbër mu nekk champion kenn dootu ko présenté ci làmb avant ngeen dugg ci làmb lan nga doon def. waaw man avant may dugg ci làmb man maanaam man ministère dama dem liggéey ministère laa dem liggéey ñu koy ñu ñu koy fooyee fii ñun ñu fi toog ñëpp. Mhm. ñëpp fooyee na làmb. fii ñu fi toog ñi ñëpp ay ay mbër lañu woon. Mhm. woon na alxuraanu karim mhm. mais nag. làmb moom nee nañ dafa laaj temps quoi. waaw après nag si la ñu bëri nag ba tey ñu quoi ndax ñu ngi ànd ak man. waaw après ñuy seet lii ma ne man daal mbër laa bëgg a doon bàyyi lépp lu ma doon def. nga dugg ci làmb lan moo la ci làmb lan mooy sa ambition ba tax nga dugg si làmb. waaw làmb man li mu taxoon a dugg ci làmb mooy. li ma taxoon dugg ci làmb mooy vengeance moo ma taxoon dugg si làmb ndax Amadou Camara moo doon bëreeg sama mag daan ko si si laa fippoon ne damay nekk mbër mais nag ñu bëri gëmuñu ko woon quoi mais maanaam tamit gars yi xamoon na ni tamit borom jom laa tamit te borom fit laa mais tamit doole rek lan lan ma dem jooyal moo tax ku nekk koo wax mbër laa bëggoon a booy mm-hmm. ah, ba may dibitee mm-hmm. ba tey maa ngi mm-hmm. na. waaw ba tey ñoom laay àndal ñi ma daan àndal démb ba tey ñooñ laay àndal. waaw nekk ci làmb nag ñu may ñu ma ciy jàppale. su ma amee combat ñu may jàppale ma amul combat ñu may jàppale. Mm. waaw loolu moo ma def mbër. moo man ma ñëw arène. moo tax nga dugg nekk mbër. waaw sa palmarès mën nga cee ñëwaat tuuti ñaata combat ñaata victoire. sama palmarès euh, mbapat wala arène. waaw man maa ngi bëre 18 combats laa bëre. Mm-hmm. am ci 13 victoire 5 défaites. Mm-hmm. waaw 5 défaites kan ak kan moo la daan. man mbay guy gi moo daan. ak euh, Coense ak Vandam euh, ak Forouz. Mhm. ak Vandam. muy cinq waaw cinq défaites yi ban moo ci gën a métti. mbay gu gi. lu tax. ku la warul daan bu la daan da lay métti. ah da nga jàpp ne mbay gu gi warul la daan. non non non man man ak moom bokkuñu sax barke alxuraanu karim mais tamit làmb moom nee na ku juumul doo daanu ñëw naa daal làmb jooju képp ñëpp ñu ñëwoon làmb jooju ne woon naa sax dootuma ci wax. Mhm. képp ñëpp ñu ñëwoon làmb ja mbay googu victoire la indi woon am na ko mais du bëre du du na daal indi victoire am ma ma seeti leneen man jàngat nga ci jëlee. ah njumte bi mooy maanaam ba may bëree moom ba may bëree moom respecté wu ma ko. te fi mu ñëwee xalaatu wu ma woon ni dina ñëwee foofu ndax at bi def na pire rek nga demee. man jàngat nga ah bu bu bu ma ci jëlee mooy maanaam confiance bi moom daan ndax yaakaar naa ne lu mu yàgg yàgg du ñëw sama kaw mais at bi def na pire mu ñëw sama kaw daan na mm-hmm. daan ndax sa victoire yi nga am treize victoire ban victoire a neex. ban victoire moo ma gën a neex. Mm-hmm. waaw ba may daan ba may daan bébé Modou Lo. Mm-hmm. bébé Modou Lo ba ma koy daan ak Brise de Mer victoire yooyu moom neexoon nañ ma trop. Mm-hmm. ndax tey sooy bëreeg ñoo xam ne kenn jox la favori. Brise de Mer ji ci làmb fuuf. ba muy bëreeg Boy Niang yooyu yëpp tamit ñu ñu ñu ngi ko dem bàyyi xel. waaw ñu dem ba dem ba bis ñëw ñu ne yaa ngi moom da nga di war a bëre tamit kenn kenn gëmu leen. waaw ma ñëw ma duma lu def ko lu ko musul nit musul def duma ko daan ko. Mhm. waaw victoire boobu tamit neexoon na ma trop waaw. nga dugg ci làmb ku xam làmb xam ne dina am jour yu muy neex am jour yu muy mhm. ci ay guddi yu métti. Mhm. est nga bis jot nga nga regretté ndax dugg ci làmb. waaw ndax maanaam da ngay rëccu da ngay maanaam du ko du du mais maanaam da ngay toog sax ma yëgoon nekk mbër. ndax problème yu ci am ak coono yu ci am. waaw ndax ay dangay ngay nekk ak ay doomu aadama yoo xam ne ngeen nam defandoo lépp ngeen nam defandoo lépp di xàccandoo di dóorandoo xam li ma la wax leen dara mais tamit ay waxee tax ñuy ñu lay ñuy di la noonu ñii di la xam nga jaratu ko woon quoi làmb man dama su ma bu démb doon tey du du ma si duggoo waaw ndax di nekk mbër moom moo metti mhm. nekk mbër moo metti mais nag man damay damay sant yàlla man moom kenn du ma kenn du ma kenn du ma wax sax an sa xaritu daaw ba man ñi mën a àndal rek laay àndal dipp ba ma nekkee ba dipp ba ma nekkee tout tànk dipp ba ma ñëw yëmbal 89 ba may boobu xaw ma dara ba may ñëw yëmbal boobu xaw ma dara boobu ki topp ci man mu ngi nàmp barka alxuraan ñii laa xameendoon ñii depuis loor ba tey man a ñoom ñooy ànd su ma daanoo maak ñoom ànd su ma daanee maak ñoom ñooy ànd mhm. waaw kon tey làmb jafe-jafe yi si nekk dafa bëri trop. Mm. nday maake ci noonu ba relation nga am ak mbëri. mbëri man na man man nag man nag moomu oo ma bëriwuma relation man ak man ak mbëri man daal su weesoo su weesoo armée mi ak mm-hmm. Saalum mii. Mm-hmm. ak ñoom général. Mm-hmm. ak yeneen sama rakk yi nga xam ne jox nañ ma cër mais daal ñu may ñu a composé mooy armée ak Saalum. may ma teg sa baaraam tungu na lu teew nataal danga may mm. paasal micro bi armé. Mm. ma daal koy cos tuuti armé. <laughs> ma wax ko suuf. armé maa ngi nuyu bu baax a baax. maa ngi lay fay Ndeye Mbacke. <laughs> nga toog sa xarit euh, Alioune Sèye numéro 2 loo ñu mën a wax ci moom. waaw alhamdulilah bisimilah inna wal yàlla ñu ngi nuyu ñëpp. di ziare ñëpp di ñaanal ñëpp jaamu. waaw. di nuyu gaay fi teew ku mel ni ñoom Saalum suma gaa yi. Mhm. ak gaay yi nga xam bëggoon nañoo ñëw ñëpp. Mhm. ku ne xam ne jamono ji fi mu toll nii dafa xaw xat ndox mi mhm. dafa bari. ñenn ñaa ngi ci yenn liggéey ak yooyu. waaw gaay dañu comprendre rek. waaw sëy moom suma doomu ndaay la <laughs> sama lonko la sama compagnon de guerre la. <laughs> looy mën a wax ci moom. waa nit ku nit ku dëggu la nit ku baax la. aussi euh, nit moom boo dëggoo rek. daanaka euh, lu bëri du la yomb maanaam euh, dégg lay laaj quoi. Mhm. suñ ànd dëggu da koo lal muy moom man ak ñeneen yi ànd ñëpp fu dëgg nekkul rek amaana du yàgg ci dégg la ànd ci jub ci nangoo liggéey aussi mhm. ku ci déggul sa morom journée lëmm di nga ko woo laaj ko ci loo nekk wala nga message ko laaj ko ci loo nekk. Mhm. xam nga loolu lu lu rafet la. Mhm. lu yombul tamit ci mbër ak moroomam ñu nga xam ne sax daanaka seen gox yi xaw na sorante. Mhm. waaw ñu bari da leen di jaaxal. mu nekk nit ku baax tamit. mais tey jii euh, à da ngay génne xarit bi nga xaritoo ak moom xarit bi nga xam da koy génnee. nga xool ko en tant que mbër booy gis ci mbedd bi muy romb nii boo ko doon jox conseil lan nga koy wax instant bi waaw bu ma ko doon jox conseil comme li may jox sama bopp rek laa koy jox ndax ay ndaw lañ ci lañ nekk waaw àdduna dara xëyul sotti luy neex di continuer yàlla programmé wu ko jamono des fois day neex ba nga yaakaar ni bu nekk amoo xel dootul naxari mais mën naa naqari ba nga yaakaar ne du neex li ci am solo mooy gën a yokk entraînement yi gën a góor góorlu ndax ñi bàyyi seen lépp ngir yow amul leen luñ soxla ci yow lu dul nga sigil leen foo dem am ndam mhm. yàlla nag moom moom ndam góorgóorlu rek la bi am mhm. waaw mu gën góor góorgóorlu comme ni ma koy ñaaxee sama bopp góorgóorlu ñëpp xam nañ ko ban conseil nga koy jox fu mu ne nii ne Aliou Seye xool ko ci bët mu lay xool nga ne ko lii laa bëgg nga def ko conseil boobu kay dégg nga mooy yoon bi mu tegu nii mu bañ cee wàcc gën a gën koo fulaal gën koo fay daal mhm. ndax euh, Ndeye Mbacke nit ñëpp wër la ñi yëkkat seen xaalis di la jox boole seeg ànd ak yow stade di la tàccu mhm. ngir lenn kese lañ bëgg nga am ndam kooku loolu liggéey doyul mhm. waaw mu ngi ci mu ngi liggéey mhm. mais lum liggéey doyul na ba na gën a bàyyi xel lool liggéey rek moo fi maye. yàlla gën koo suturaal ci combat am bii mu jëm yàlla may ko ndam ndax ndamam suñu ndam la waaw yàlla muy yore ndam sañ koo joxe yàlla na ko kàttanal may ko ndam kàddu yi rafet na joxaatal ma ko micro bi ci combat boobu la ñuy des ba léegi Alioune Seye numéro 2. junior Alioune Seye junior mhm. waxtaan bi yëpp neex na. Mhm. da jëm ci bis. Mhm. bis bu mag. Alioune Seye làmb ji tëj ubbi nga jël combat bu diis lan moo waral lool. non man moom Tidiane Faye bu demee bay diis bay diis ci man non ma ma ma tekki bàyyi bëri ndax tey te que da nga ñaan yàlla avancement Tidiane Faye nag gars yi ñu ngi wax dafa diis am diisul dafa diis am diisul mais man mi nga xam ne man maa a jàmmarloo ak moom bis ba a a tuddee ko le professeur de Lamsar ndax lan mën a bëreem mm-hmm. technique ba mu am xel ba mu am nga nekk xale instant bi da nga waroon da ngay jël combat sax bu nooyi pour xaw a yéeg noonu mhm. nga jël Alioune Seye nga jël euh, Tidiane Faye man affaire dafa ma jaaxal jaaxal ñu bari ku ma wax dama ne day mbàkk laajal ma Tidiane kii Alioune Seye mhm. lu tax mu jël euh, Tidiane Faye waaw Tidiane Faye adversaire la kon yeneen adversaire yi Tidiane Faye ñëpp xam ne ñëpp nangul nañ ko dafa mën a bëree mhm. mais man pour man ki ko dàq bëre ci Sénégal mooy Alioune Seye 2 te moom laay kontaagal yaa may dégg pour man ki dàq bëri ci senegal mooy Alioune Seye 2 moom laay contactal. Tidiane Faye man pour pour man kon kon ñeneen ñi ma dem bëri la rek. barke alxuraanu karim te te bis te bis bu te bis bu bis bu ñëwee lu ñëwagul moom boo ci wax sax da naan da nga da wax mais bis bu bis bis bu demee ba ñëw su boobaa ngeen di xamaat ngeen di xam Alioune Seye ban lu mu capable. bu dee bëri mën naa ko bu dee fit am naa ko. bu dee jom am naa ko doole nag moom suñu borom moo ko am. mais nag dinañ ci góorgóorlu bu baax a baax. doo daam lu koy maye. waaw moo tax man la doole kenn amu ko yàlla rek moo ko am. Mhm. bu doon doole rek boo ma jiyee kenn dootu ko daan ci làmb ci. Mhm. mais boo amee doole te boo amee doole te amoo xelum bëre. doo daan kenn mhm. yaa may dégg waaw. waaw doole. soo amee doole te amoo xelum bëre. waaw. ñu dégg sa kaddu. yow nga ne. Tidiane Faye yow yaa ko yóbbu à la retraite. yow yaa ko wax assumé nga loolu. waaw mais ci kàttanu yàlla incha allahu rabi. Mm-hmm. incha allahu rabi mm-hmm. waaw. si amul kenn ku la woo la Tidiane la mën nga jël combat wala. déggoo ma la wax man ñii ànduma ak ñoom ci ñëw ci arène bi. yaa ma dégg man dama ànd ak ñoom depuis ba may mbapat di di di mënuma takk ngemb. Mm-hmm. man ak ñoom ku ne daan naa ko. ku ne sama morom bu ne daan naa ko. barke alxuraanu karim c'est que Tidiane si laa kii nii rek mais waa Lansar. man xam naa leen bu baax a baax. Mhm. waaw xam naa leen bu baax a baax. waaw mhm. ah, te si kàttanu yàlla Tidiane Faye dinaa ko duma daan ko incha allahu rabbi. instant bi làmb ji peut-être mu ubbi novembre. waaw fu ni ci lan nga nekk da ngay nekk di sa entraînement toujours wala da ngay relax en attendant. dégg lu ma la ñun nee naa la ñun làmb ñun amuñu lu dul làmb làmb moo yàq suñu lépp. Mhm. làmb moo yàq suñu lépp ñun làmb mooy suñu métier. bu ñu am combat ak ñu bañ a am combat dañ ciy nekk di entraîner. yaa ma dégg am ay gars yu am ay nit yu nekk suñu ginnaaw mm-hmm. yaa ma dégg soo xoolee suba ba tey man ak ñii ñoo nekk mm-hmm. dégg nga ma kon duñu xaar kenn ci lenn bu ñu jógee Tidiane Faye tamit dañu seetaat leen nekkaat yi nekkul pour Tidiane Faye moo tax ñu entraîné mm-hmm. Tidiane Faye pour benn adversaire la adversaire boo xam ne pour benn pour benn bis la après ku nekk seet leneen yaa ma dégg mais man bu dee man Tidiane Faye rek moom moom laay préparé kon ma bàyyi bëre dafa ñeneen laa war a ñu ñu ñoom te li ma wax te li may wax dama ko gëm barke alxuraan. supporters yi am nañu la gëj a dégg am nañu la gëj a gis sax nga teg seen loxo nga xam te ne ñu ngi sori fii nii. waaw ndax instant bi nii damay damay damay jégaluwaat samay ndax gars yi bu ñu gisee bu ñu gisee émission bi nii après euh, dinañ dinañ dinañ dinañ dinañ ne mbër waxuma kook nangam nangam. Mhm. te fekk damay laas sama téléphone dafa wadd. Mhm. dafa wadd. moo tax ñu bëri sax mënu ma leen jot. Mhm. yaa ma dégg. moo tax moo tax moo tax sax ñoom ñëwuñu. dégg nga waaw nag. maa ngi maa ngi jégalu ñëpp képp koo xam ne tamit dégg nga émission bi nii te teewoo si tamit te tamit waxuma la ko. Mm. maa ngi ci jégalu nag bu baax a baax a baax a baax a baax mm. waaw. Alioune Seye est ce que bu làmb ji dina bëri lu moom daal lu amee frappe man dam man déggoo ma nag man nee naa la man dam bu lu lu ma lu ma sentir rek dama ko def lu ma sentir doo lu ma sentir doo du ko def. est ce que sentir nga lu simple wala. waaw mais après ma dinaa ci xool di dinaa ci xool. Mm. première dame loo wax. waaw sama soxna moom dama koy sant rek di ko gërëm di sant tamit sant sama samay goro yi nekk Italie mm. waaw ñoom da dañ may jàppale bu baax baax ci sama diggante sama soxna mm. maa leen di sant ñoom ñëpp waaw sama goro yi nekk Italie yëpp mm. euh, mm-hmm. ah, waaw ñëpp daal ñëpp ñëpp maa ngi sant ñëpp waaw mère Fatou sama bii mooy sama yaay soxna maa ngi jël nuyu ba teg ko si loxoom mu joxal ma ko waa Italie yëpp ne leen wax seen goro kontaan na ci yéen bu baax baax a baax. Mm-hmm. balaa ñu émission bi rek dafa am ñi lu xew. Mm-hmm. naan Gris Bordeaux boo xam la fi nekkal mbëri ndaw yi ne dañuy ber seen mm-hmm. daara. naka gisee ñaari groupe boobu ba pare avant tout. waaw ndax man moom man moom sànq sànq man wax naa la ko nee naa la man ay ay kuréelu ay mbëri yeeg kii nangam nangam man loolu duma ci dox. yaa ma dégg man dañ ñun duñu am suñu suñu mafia boo xam ne ñun ñooy bokk di entraînement chaque jour yaa ma dégg man si ñooñu laay dem di entraîné ku ci mel ni ñoom armée générale ñoom Saloum xam nga li ma la ñun ñooñu bu nekkul géejawaay entraîné bu bu demul géejawaay ñun ak ñooñu ñooy bokk di entraînement yaa may dégg man ay groupe ay nu mu nu groupe bi sax tuddati xaw ma mbëri ndaw yeeg. mbëri association les jeunes lutteurs rek. association lutteurs yi mais ñoom dafa am benn dafa am benn dara lu ñuy mm-hmm. xeex. Mm-hmm. li ñuy xeex loolu yaa ngi koy dégg. Mm-hmm. est-ce que yow ànd nga ci loolu wala. déggoo la ma la nee naa la man loolu du du du ma si yéey yàbbi xamal loolu xam xam fa leen yéey yàbbi ñun CNG nañu wax suñu xaalis bi ñuy dagg fa lañ koy dugal. yaa may dégg yaa may dégg man loolu moom mooy sax ak mbëri yi nga xam ne dañuy feebar ñu leen di ketal man loolu mooy sax mais maanaam bu ay station yi yëpp xaadim si xaadim Gadiaga la njëkkee woon mbër yi mbër yi day dem bay yu ñu ne ñun yooyu yooyu yëpp yooyu yëpp ñu koy wax léegi xam fu mu mujjee ay station nii nangam nangam man Alioune Sèye Junior du ma wax si loolu man am naa beneen temps bu may perte bu du nekk ci station yi nii di parallèle la naan non non. kon yow bokkoo ci benn association bokkuma ci benn man xam station ban laa bokk sa mafia Talla Diop laa bokk. ah lu mafia Talla Diop. mafia waaw mooy mooy ñu ne ñoom armée ñoom Saloum ñoom Grand Da. yaa may dégg. ñu ci mafia mafia boobu man laa bokk mais bokk ma ci benn ay jeune lutteur rek nangam nangam mhm. waaw lu li may li may daal mooy CNG xaalis bi ñu dagg mbëri mhm. fa koy dugal mbëri yaa ngi feebar amuñu lu ñu fajoo mhm. di ñu leen ketal yaa ngi loolu moo ëpp rendement ay association li de Séné ay lutteurs yaa may dégg booy frontière boobu fii dafa paralysé def AVC amul benn ku benn nitu làmb boo xam ne mu ñu yëg na ko jàppale ko te yóbbu nañ ko stade yóbbu nañ ko fu ne yaa ngi ñu war a jàppale ñooñu mais ñun ñu wër péng na station Léegi Sénégal Gris Bordeaux euh, nu mu tuddati Kona ah keneen ak keneen fii yaa man du ma wax si ñooñu ma wax si ñooñu man su li may wax daal mooy nan dimbali mbëri feebar mhm. man loolu mooy sama message bu ma lancé waa CNG mhm. mbëri feebar na leen dimbali mhm. mbëri nekk si ay jafe-jafe ku ci mel ni Bébé Saloum làmb taxawu ko ndax lu ne lu ne def na ko si làmb ay bébé jéen yaa may dégg ak ñeneen ñeneen ñoo xam ne xawma leen ñu ngi ci kaso bi yaa may dégg ñu dimbali leen ndax ñooñu suñu naw la mbër lanoo man loolaay lancé mais affaire ay Gris Bordeaux ak Kona ak nii nangam nangam man nekkuma si yooyu waaw fu ñoom nag lépp lu luñ ci bëgg yàlla na ko suñu borom defal mais man moom ooma jot a bokk benn benn association Ndaaka Lutteur ban message ngay lancé li may lancé daal mooy na mbëri yeewu mbëri nan yeewu mhm. yeewu nag mooy xam nga mooy lan maanaam ñu bañ a yaa ma dégg mbëri mag yi ñooñu ñoom la fi ñoom ñooñu jiitu ay Eumeu Sène Balla Gaye 2 Lac de Guiers 2 Modou Lo yaa may dégg Bombardier ñooñu ñoo nekk suñu kanam ñun dañ koy nangu man da nangu naa ko mais nag ñoom ñooñu war a nekkal ci kaw ñoom ñooñu war a nekkal ci kaw nit ñu nekkal ci kaw nag mooy ñu xam ne dafa doon am ay rakk yoo xam ne si ñoom la leen topp ba ba nekk mbër dégg nga léegi ñun amuñu amuñu lenn lu dul làmb mm-hmm. ñoom mais ñoom ñu nekk ci kaw bu bu nekk ci kaw di di dundee lu ñu bay dugal dugal seen poos mhm. kon seen rakk yi nekk si ginnaaw la la ñu dugal seen poos mhm. yaa may dégg ñoom nu ñu dimbal ñu dimbalee mooy la ñoom ñu booloo doon benn ñu ñu nekk seen ginnaaw mais pas ay di bay di dundee mhm. yaa may dégg ñoom nañu ñoom nañu sëbe seen rakk yi nekk si si maanaam ci euh, ci ginnaaw nañ sëbe seen rakk yi nekk si ginnaaw te bàyyi bay dundee bi waaw lu man loolu laa am lu may lancer message ñoom nag ñoom la fi yàlla teg suñuy gannaaw loolu waaw mais nag nañu nañu giide daal lamb bu ko koo dégg mu ne waa lamb kenn ñoom ànduñu ànduñu ànduñu ànduñu ànduñu ñun nan bañ loolu lépp ngi ubbi lamb rek lañ tëj ñun ñu ñu waroon a bëree ba comme des deux semaines. Mm-hmm. préparer ce combat. Mm-hmm. préparer ce combat def lépp def say pré say say def say préparation de voyage def lépp.

seen patron ne ko mu jàppalewaat ñu sunu combat mu mu mu dolaat ñu xaalis. Mm-hmm. waaw loolu kese loolu laa leen yóbbante si moom. lan nga tàggatoo mu la fin tëj émission bi. mooy maa ngi gërëm sama gaay rek maa ngi gërëm sama gaay di gërëm tamit sunu waa Ikiri Ikiri Ikiri Waalo tey gaay yi la dëgër mooy ngénte sax moo tax tey Ikiri Waalo gaay yi ñëwuñu fi. Mm-hmm. yaa ngi dégg mais ñoom xam nañu sama diggante man ak ñoom ñoom xam nañ lépp yaa ngi dégg mais su ma nekkul su ma nekkul Waalo. maa ngi fii yëmbal nekk sama gars yi. damay gërëm ñi nga xam ne maanaam su ma amee combat dama ñoom dañ ci kattan. te ji bépp jàppale xaalis neex na trop mais ki la ci kattan kooku mënoo ko fay. grand taala da armée général Saloum Abba Bulldozer yaa may dégg ñoom joo booy booy Malika euh, euh, euh, booy Malika yaa may dégg Amet ba Balla gars yi ñi nga xam ne mafia yi nga xam ne far fajar chaque fajar bu 5 heures du matin jotee ñu ne ñoom ñooy daje ñooñu ma ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax. Mhm. di sama gars yi nga xam ne ñoom boobu ba tey bàyyiwuñu. Mhm. ban dalee léegi ëpp na 15 ans ba ñuy nekk ay booy ba tey. Mhm. ba tey ñun ñooy ànd kii tuddee ma doom. yaa may dégg kon loolu nekkatul nekkatul hasard. yaa may dégg maa ngi gërëm yëpp ñëpp maa leen di gërëm. di gërëm sama grand frère bi nekk ci kër gi moo tax moom man faale ma mbër mag. barke alxuraan ko mëri fay ko ay million ma leen de. saal bi may entraîné gis nga ko chaque fin de mois vingt mille francs laay fay chaque fin de ba bu dee làmb lépp lu làmb laaj loo bëgg ñu defal ma ko kon ñooñu noonu oma seen fay muy sama grand frère bi nekk si biir kër gi du ma tudd turam taaliba maam Malick bi dama koy ñaanal yàlla na ko yàlla may gudd fan wér ak wér mm-hmm. ba li ma koy wax chaque jour rek mu fekk sama njëriñ mm-hmm. waaw yàlla na ko yàlla may fanu gudd ak wér ak wér le bu fekk sama njëriñ di sant tamit ja jabaram bu baax a baax mhm. bugguma sax di si ñëw ndax maanaam liñ may defal dafa bëri ci àdduna barke alxuraan ko li sama rêve mooy maanaam tey ma fay leen loolu noonu te si kàttanu yàlla yàlla baax na yàlla na yàlla defal lépp di gërëm tamit sama mag yi sama mag yi góor yi nekk si biir kër yi nga xam ne ñu may jàppale ci lépp mhm. gërëm sama soxna gërëm sama doomu mag ñëpp mhm. waaw gërëm sama ñii ñëpp ba nekk ay booy la ñu commencé toog. ñooy bëree mbapat. moomoo Kara ñoom góor gi Aba yaa may dégg. booy yëpp ñoom samay waaw mooy loolu. dibu ba nekk ay booy ba tey man ak ñoom gërëm sama gars yi gërëm tamit Tafa Kara mi nga xam ne fu ma defee émission moo may defal tiset. di ma ko may du ma laaj benn dërëm. njaxat njaxat moom nee moom sama jarbaar la moom. maa moom moom xam na man xam naa dama koy ñaanal lépp lu mu bëgg yàlla na ko borom daa defal ci bàcc yonente bi mm-hmm. waaw mm-hmm. sama doom yaay mbay mencee kii école Balla Gaye la nekk kii mooy mbay mencee yaa may dégg luur waliyee waaw ah sama doomu ndey la man école Père Balla Gaye laa nekk mais moom sama waay la man dagul ma féete dama waroon dem tudd la de guerre waxoon na ma ko mais dama ne moom bu ayee dama damay teewu ndax doomu aadama amul ku la bëgg te ki la bëgg moo la yëg te nee doomu aadama fooy dem fu ne nan lay naw bu la nawul jaru nga fay dem. moo heure ba ñu xamante ba léegi moo maanaam amul leen lu ñaaw si man. macha allah moo tax yal na ko yàlla defal jàmm. yàlla mooy ko ndam. si si lu mu jëm. man combat Balla Gaye bi dama si waroon bëree maag Tapha Atelier ñoo waroon bëree. Balla Gaye 2 sama doomu nday la sama waay la. fanu julli gi 20 000 la ma may. ni ma pereel sa tabax si. amul leen lu ma siy dóora wa ma si ma kon yàlla yàlla dafal jàmm. amiin bay waaw beneen bi tamit mooy di gërëm tamit saabu saa cent yëmbal bi yëpp maa leen di gërëm. gërëm ñëpp sama gars yëpp maa leen di gërëm ndax tey yi moom ala taw na quoi maa ngi gërëm ñëpp sant ñëpp di gërëm tamit nday Mbaka tamit yow tamit maa ngi lay maa ngi lay gërëm bu baax a baax di gërëm tamit sama waa dëkk maa ngi gërëm waa Tiwaawan kër kër Matar maa ngi leen gërëm bu baax a baax gërëm waa kër Mbir Ndaw gërëm waa Ñaapa Bala gërëm gërëm waa Saalum bu baax a baax a baax su amee combat su gis naa nit may jàppalee bu baax a baax a baax gërëm yëmbal yëpp nag 1 ba 26 maa maa gërëm waaw ba ay cité la léegi 1 ba 26 fan sa club bi nag maa ngi gërëm ñëpp mention spéciale ndax depuis démb ci guddi ba tey ñu ngi pour affaire yi nu mu réussir mm-hmm, mm-hmm. yaa may affaire a añ nañ ba suur naan nañ ba màndi xam nga mm-hmm. waaw loolu si si si la jógee yaa ma dégg ñoom ñoom dan naan ma dan naan ma ñoom yow lépp loo bëgg rek ñu suba ba ngoon mais bu amul sax di di yéen ko wuti barki sëriñ Ba loo loolu moo tax loolu moo tax damay bëgg sax découragé bàyyi bëree dem seeti leneen mais wóor na rasulaa ñoom ñaanaan ñoom ñaanaan ma ñoom ñoo naan ma bés boo bàyyee bëre ñun ñu bàyyi seetaan làmb jërëjëf barki alxuraanu macha allah maa ngi gërëm ñëpp sant ñëpp di wax nag Tidiane Faye am na problème de na liggéey seen patron ne ko na wut dat suñu yaram day xasan barke alxuraan lamb ji léegi mu ubbi ñu wut dat incha ah. allah mu ngi noonu nag di ko jaajëfeel bu baax a baax a baax moom Alioune Seye junior ah, di ko kontaane bu baax di ko bégg di béggee ñëpp ñu ma fekk armée maa ngi koy kontaanee bu baax a baax gaawal nga takk jabar nag def ful la noonu laay def daal di sant di gërëm sama équipe bi ah, a baax hmm. Mansour Fall kenn du yow mañ pro borom shooting yi waaye mention sama chauffeur bi sama bi ah moom moo maa ne di ko bégee bu baax baax naa ko peace and love jaajëf waa Leewtoo dafa am sama benn goro bu génn àdduna sa sama benn goro moo génn àdduna d'accord maa ngi koy jaale di jaale tamit sama sëriñ sama xarit sëriñ Cheikh Gala Thiaw Laye maa ngi koy jaalee sunu sunu sëriñ sunu baay baay Ablaye Thiaw Laay yàlla na ko yàlla yërëm ta xaar ko àjjana waaw di di jaalewaat tamit sama benn jarbaat boo xam ne jabaram papaam dafa génn àdduna muy njaga siis maa ngi jaale asutay bu baax a baax a baax di wax Baye Samba yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana firdawsi waaw te xam naa ne di ngeen ànd ak yi ñëw ñëw jaale sa ko insha allahu rabbi yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana firdawsi ci barke yàlla na leen yàlla aljana képp kuñ fa fekk ak ku fa fekk waaye di leen béggee bu baax yéen internet yi mhm. nee naa biir réew ak bitim réew kon ma ko waxee soppa yi fépp lañ nekk dama leen jaajëfal bu baax a baax waa international waa national noonu laay def jox leen dig yoon ak beneen champion ci biir goxam jaajëf